bëri luñ koy joxante mënul koo bëree ba sàppil ko mu ëmb jàmm yàlla ju amul àpp ëmb yërmandeem ju lëw ju yaatu ju sakkan jooja ëmb barke ak naataange ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëm yu tedd yu sell yi di ñaan li mu ëmb lépp yàlla na yàlla boole imbil ñu ko sotti ko ci sen jëm yi ci sen place yi ci seeni barab yi ci seeni njabot yi sotti ko timit ci jëm ju xébu ji xolam ëmbal leen ciofel di ñaan li leen ci yéene nañu ko yàlla boole ñun bi xurmati sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ci xormaay doole ju rëy ji ko yàlla jox xam naa damay delluwaat rekk sof ak yow li ma sosoon ak yow ci waxtaan yi paase te rekk ku bëgg ndëgër laay gu dëgër bul sonn na nga dëgërloo kiy dund te dundam nga dund jiituwut ko te dundam nga tamit dee du ko gaar dee du ko mujj ba tax na nag koo mun di dimbandikoo kudul kooka tabaarakallaahu su dee ñëwee ci moom ganesi ko rekk nga mujj wéet moo tax booy wéttalikoo wéttalikoowal ki dul dee sooy dimbandikoo dimbandikoowal ki nga xam ne kartanam nga ak mun-munam nga nekkul lu ñu limité waaye moom mooy kii limité kartan yi ak man-man yeeg dund yi di rabbul izzati wal jabarut moo taxoon mu waxoon yonentoom bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa tawakkal ala alxayi alladi laa yamuutu booy def tawakkul di sukkandiku sukkandikool ci ki dul dee waaye koo fi sukkandikoo ku dul moom mu dee bàyyi la fi rek nga mujj wéet nga mujj jax nga mujj jaaxle nga mujj nek ci problème su ko kon nañuy dëgërloo ki am ndëgër lay, ki am ndëgër lay kenn la moy yalla mi tuddé bopam al waaye waye kudul mom rek daif ga kon so bëggatee kartan bëgg doole na nga dimbaniko tabarakallahu ci ki nga xam ne mooy rabbul izzati wal jabarut mooy ki nga xam ne tamit fu mu toll mi ngi bàkk boppam ne inna allaha ala kulli shay'in qadir mooy man lépp waaye boo dimbali ko sa soxna lu lay jege-jege bis dana jot mu wan la gannaaw rek nga mujj wéet wala yàlla roof ko ak tëli nga mujj jaaxle yow soxna si timit bo jele sa lepp sukkandiko ko ci sa jeuker ji bis mën naa ñëw yàlla jëlee ko fi wala hakay bu fi nekké timit yalla rocci kartan ak man-man gim ko denkon nga muji nekk ci jafe jafé yow wajur wi may deglu timit bul sukkandiko ci sa dom diko dimbaniko ba tax leg leg nga jital ko dem ci serigne naan ñaanalal ma sama doom ji moom laa yaakaar kooku wax la joo xam ne ju suufe la wax la joo xam ne tamit ju doy waar la danga war a yaakaar yàlla mi nga xam ne moo la doon dimbale ba nga amagul doom yow doom ji tamit bu la rëy ngaam jàpp ngay tiitaru jàpp ne man ngaa féete féetewoo sa baay fenn fu ko yàlla mën mënta féetewoo wala fu mu la fa féetalee ba tax ngay reey nga amne ne man mi la sama baye yaakaar mané sa baye yéex na laa ba nga amagul ku kan la on ak kan moko yore naka nonutimit, timit ab serign bul ko yaakaar ci sa lepp jël ko rek jikom doy la ak mbaaxam ak xam-xamam ba nga diko roy ci def ndigle ya diko roy ci baye tere ya bo legge fum gis bopam gis la fa waaye nag soo bëggee jël sa lépp bëgg ko koo wéer ah bis dana ñëw tamit nga mujj wéet bis dana ñëw tamit nga mujj lompañ waaye sëriñ daal ak ab yonantu ku ñuy roy dong la waaye duut ku ñuy dimbali ko ci suñuy mbir yépp ñu jàllal bi ko wéer ko ca ñoom sa président lu muy am am njariñ ak fum la mën di féetewoo yaa xam bum tax mukk timit nga di ko wala nga jël say mbir yépp bëgg ko ko wër kon bis bu ko nga am problème bis bo xamé né timit relation bi nga amoon ak moom nekkatut fa nga mujjii am problème kon dal ku bëgg kartan gu sax ak ndimbal lu sax nang ko wër ci borom dund gi nga xam ne dundam nga dund jiituwut ko te dundam nga tamit dee du ko gaar na ko wéer ci boroom kartan gi nga xam ne kartanan nga tabaarakallaahu dugut lu limitiwu waaye lépp rek mën na ko ci lépp ci woomalal la ci wéral la ci jàmmal la ci wërsëgal la ci xéewal la ci naatal la yooyu yëpp nag boo ca nekkee rek mu nekk lu wér ci yow doo am problème su ko defee nag waaye ba nga jël sa yëpp rek niñ ko waxee woon ci waxtaan yi paase lu la naqari dal ci sa kaw rek nga foog ni nit a la ko teg jël sa gémmañ yuuxu jëmee ko ca kooka di tawat ba daanaka tawatutoo jëmee ci yàlla mi nga xam ne mooy faj soxla yi yooyu yëpp ak doxadi la ak réere sa borom la waaye tamit ak réere sa bopp ak réere sharia bu laab bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal la ko mag ñu baax ñu tedd ñi suñ maami leer yi tamit ñëw beesalal ñu ko waaye boo yëgee ne rek noo mel ab population nu ñu mel yàlla utal leen njiit lu niroog ñoom suñu nekkee nit ñu dëggu ñu jub ñu ragal yàlla nangu koo jaamu am xol bu laab yéene wante lu baax ci seeni biir di def lu baax di moytandiku lu bon yàlla hutal leen njiit lu am yërmande ci ñoom lépp luy seen problème yàlla tàggat njiit la mu defal leen ko waaye suñu nekkee nag population boo xam ne baaxuñu jubuñu ragaluñu yàlla nekkuñu santaane yàlla yi mooy ya bëri bàkkaar ya bari yàlla tàggatale leen njiit yu leen dul yërëm heure bu nekk rek karawaas gaa ngay dal ca prix yu seer ya karawaas gaa ngay dal ci seen jafe-jafe yi nga xam ne tamit du jeex moo tax yonent bi daan wax ne kama takunuuna yu waala aleykum nu ngeen mel rek yàlla utal leen njiit lu niroog yéen su ko defee kon nag li ki des mooy fexe mel ni yàlla bëgg ñi mel su boobaa danañu tànnal njiit lu ñu bëgg mu jiituñu ci anam yépp waaye nag ni yàlla bëgg ñi mel suñ ko melut yàlla boole ñoo njiit yoo xam ne niñ bëgg ñi mel ñoom tamit duñ ko mën a mel kama takonuuna yuwaala aleykum su ko defee kon nag nañu dimbandikoo yàlla ci góor góorgóorlu def ndigalam yi ci góor góorgóorlu tamit dàyyi ay tereem lépp lu dal ci suñu kaw ci nattu ci jafe-jafe dund ñu bañ a dëkk rekk ci takk ay morso yu xonq di ko tawat jëmee ko ci ku lottu ni ñun waaye loola bu ñu dalee nañu seetaat suñu bopp ndax li ñu yàlla santoon ña nga ca ndax li mu li mu ñu tere woon bàyyi nañ koom déet ndax lépp lu ñuy xemeem bëgg ko mu tere ñoo nelaw dafa laxasu ci biir ndigali yàlla yi suñ ko defee rek xamaale loola waaye lépp lu ñuy bañ ba di ko daw di ca muslu dafa laxasu ci biir tere yàlla yi su ñu ca nuuree rek loola tamit wommatu ñëw dal ci suñ kaw te duñ ca man dara su boobaa nag yéen jaami yàlla yi man ak yéen yëpp ñu bokk bokk yàlla nañu góorgóorlu dellu ci yàlla waaye nañu góorlu tamit problème yi nga xam ne dañ ko mooñaaleeg suñu dund muy ay jafe-jafe buñ ko tawatati kenn nañ góor góorlu ba di ko tawat yàlla suñ ko tawatee yàlla rek yàlla moomu moo koy sant ñi ngi ko bëgg a tawat te mënuñu koo faj su boobaa far force ñoo ñu fajal la ko waaye so fi baye yalla nak diko tawat ku lotu ñu yaw ami soxla yu dul jeex te mënu ci tous su boba yalla baye lak mom nga sonu sonale mu sonu sonale te li ngeen bëgg manam du faju lolo waraloon yonantu yépp jafe-jafe yi dund ya leen doon gaar li muy métteeg li mu doon dong lañ ko don tawat yaa ngi xool yonentu yàlla noox ak jafe-jafeem gu ga ca nit ñu bon ña ko yàlla yónni woon ñu doy waar daana ko móoloo ka saagaa ka xas léegi-léegi ñi koy sànni ay xeer di ko móolu naan dangaa gudd fan danga war a dee wax ju ñaaw ju nekk ñu ko teg ca deram ba mu sax ca coono yooya ak jafe-jafe yooya junne at yu manqué juróom fukk lépp naqari ba alquran fa labisa fihim alfa sanatin mu ne illaa xamsina aman junne hadde moo yonantoom nga waaye junne yépp a naqari moo tax mu jël baatab alfu daafal ko sanatu muy tekki at mu métti at mu naqari waaye mu setti ca nag ne illaa xamsina aman jël am tamisal ko su ko defee wane ne kon moom rekk moo juróom fukki at yooya rek nag moo cay at mu neex waaye ba mu demee gannaaw junne at yu manqué juróom fukk yi yaakaaram tas ka ñoñam ña ngir seen ak mbon bëgg leen na ne bëgg leen a jubal nanguwuñoo jub ba mu ne rab rabbi inni daawtu qawmi laylan wa naharan fa lam yazidhum duaaya illa firaaran mu ne xoonaa leen yow yàlla sama nit ñi nga yónnee woon ma waaye sama woote bi daal la muy bijj ci ñoom mooy ak foñ ak wan ma gannaaw bañ a déglu samay woote xoo naa leen ci par kenn kenn jëriñut xoo naa leen ci mbooloo jëriñut foofa tamit jaaxle gi bam ko dalee loxoom ya tàllalut ko ñaxtu jëm ci kenn ci yàlla dong la ko tàllal ne rabbi laa tadar ala al ardi min al kafirina ndax innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yaldu illa fajiran kafaran tofalaat loxo ya talak ko ko rabbi ighfirli wali walidayya wali man dakhala bayti waaye yalla momu mu talal loxom ya faj na soxlaab ndax mom kenn dong mo meuna a faj soxla yi waaye lola bamu mu no talal ko jëmee ko ci président talal ko jëmee ko ci ministre talal ko jëmee ko ci ben homme de loi ak poar ya len yalla joxoon la muy reuy rëy déedéet yàlla la talal loxo ya wa yalla mam ko talalon timit defal nako ca le ko yettal gal mu yett galam gu siw googa di ñetti etas etas bi njanaaw yi bi nit ñi bi bayima yi ci xeet yooya lu nit nak ñaar rek ca neewon muy goor ak jigen usluk fiha min kulli zawjayn waye nit nga ñom 80 personnes lañu won ñoo ca gal ga daw na juróom benn weer ci biir géej gi door teer ca doj wu siiwoo wa di juudi yu ba alquran ne wastawat alal juudi yi ci la mujj nag wàcc sancab dëkk tuddee ko juróom-ñett fukki nit ndax booba juróom-ñett fukki nit lañu woon mu sax ca ñoom juróom fukki at lépp neex ndax ñam fa nekk ak ñépp a ko gëm mu door a génn àdduna juróom fukki at yu neex yooye nag moom la alquran di wax ne illa xamsiina aman su ko defee nag noo door a wuyu boromam dëkk booba ñu sancoon gannaaw bi àdduna raafee mooy sanaawu yaman di capitalu yaman tey kon kooka jafe-jafe yi ko dal loxoom ya kenn dong la ko tàllal waaye ñaxtuwut jëm ci kenn yi takki morso yu xonq yàlla dong la ko tàllal yonentu yàlla Ibrahima bi ko yàlla dajaleeg buur bu bon booba di nam Namruus ak mbonam yeggoon ci ne na santaane ñi taxan matt pour lakk yonentu yàlla Ibrahima population ba ànd ci ak moom ndax moom dañ koo gëmoon di ko jaamu mu bokk ci ñeenti ñi mës yilif àdduna bi te waxoon naa la ko ñaar ña di xéeféer ñaar na di jullit xéeféer ba moo doon Namruus mii ak buxtu nasar waaye tamit jullit ba moo doon Suleymaan ak Zul Qarnayni bi àdduna sosoo ba léegi penkook sow nga mën koo yilif ñeent ñi dong ñoo ko mës a def ñaar ña seen kilifteef ga dañ koo jëmee ci lu baax di yàkkali toolab yàlla bi ak liggéey bii mu santaane ñi war caa ne yeneen ñaar ña nag seen kilifteef ga dañ koo jubale ci jéem a fay taalab yàlla bi ak jéem a xajamal liggéey bi nga xam ne moom la yàlla tàllal teg ko ci loxol yonent yi ñi war koo tasaare kon foo fekk kuy def lu baax rek kuy def lu bon mu ngi ci peggam waaye gis nga Ibrahima safara wañ taal ak la ca aju lépp bañ ko ca sànnee intervention bàyyeekoo na fu ne ne ko nag ñaxtul ma xettali la ci malaaka mi yore ndox mi di Mikaayil mu ne ko ndox ak safara jubóowuñu booy xettaliku léegi rek asamaan si taw muy niir yi su ko defee safara yu fay nga am jàmm mu ne ko sa ndimbal soxlawuma ko malaaka mi yore ngelaw ñëwati mu ne ko soxlawuma sa ndimbal jibril ak doole ju réy ja ko yàlla jox ñëwati mu ne ko soxlawuma sa ndimbal mu ne ko comme yow doo tawat jëmee ci kiñ bind waaye dangay ngay tawat jëmee ci ki bind tawatal say mbir jëmee ko ci yàlla mu ne yàlla daal moo dogal lii te moo ma fi sànni ndax buur bii li muy bon bon namm ci man lu bon bu ko yàlla dooleelu toon namm ko lii du sotti kon man xam gi yàlla xam loola te def ko doy na ma sëkk walis may tawat di jëmee ci keneen waxuma la ci moom moom sax du tawat jëm ci moom xam gi mu ko xam rek doy na ma kooku nag mooy dayoob tawakkul ilmuhu bi xaali yugnini an suali bi Ibrahima ay wax loola ca xol baag na mu ko waxee Jibril ca làmmeñ war ak dëkkara ba wàcc Jibril ma ko doon wax loola moom la yàlla mujj yónni mu ñëw si su ko defee ne qul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim dekkara ba wàcc na Ibrahima am jàmm Namrus taxal tabax sotoom bu gudd booba di ko séentu gis ko muy lekk pom ci digg safara wi maanaam lépp luñ ko luñ dara lakkut ci moom lu dul ñaari jéng ya woon tànk yi ak loxo yi mu ne ko Ibrahima ku la xettalil ci lii mu ne ko suma boroom mu ne ko sa boroom moomu danaa ko rayal junney nag ak junney jëléem félicité ko ci lim la defal njukkal ko ci lim la defal mu ne ko du la jariñ ndax xéeféer nga te xéeféer lépp lu mu def jublu ko ci jiital bàmmeelam du ko jariñ du ko fa fekk fa ja'alnaahu habaan mansuura rekk lay mujj ndax pas-pas biy tax di fas jëf yi muy wéetal yàlla ak sellal pas-pas yi comme néewu fa du jariñ soo ko defee tamit doo doo dajeeg payoor ga ëllëg ci yàlla waaye yàlla dina la ko fay fii nag fay ga mooy ngelaw lu neex li lay upp doom yi la yàlla defal pouvoir bu mag bi la yàlla jox loola mooy pay ga waaye payoor ga moom doo dajeeg moom ëllëg ci àllaaxira moo tax lépp lu nit def ci mbaax te duut ab jullit yàlla day jiital pay ga fii ci àdduna balaa dee ndax li ko yàlla defal mënu koo fay benn noyin rek lim def ci teraanga lépp mun ta fay benn noyin mënu koo jënd waaye nag bu demee àllaaxira foofa moom du fa du fa daj dara du fa dajeeg dara tamit ndax loola mu doon def lay tax mu mën a am pas-pas pas-pas baa fa newul te sëriñ Moussa Ka dafa daan wax bala ngaa xam njariñal pas-pas ak baax ga rek ngay ngay ñaw fàttee pas wëñ ga soo xëccee rek la nga la nga ñawoon yëpp topp la ku gëmul yàlla pas-pasam baaxut lépp lu mu def ci lu baax maanaam mu ngi mel ni kuy ñaw te fekk fasul wëñ ga bu xëccee rek lam toppoon lépp lam ñawoon lépp topp ko waaye wéral pas-pas nag xasee am loo defati rek maanaam fas nañu wëñ nga su ko defee mu nekk lu des tamit ñeexal la fii ci sa àdduna ñeexalaat la tamit ëllëg ci sa àllaaxira moo tax ñu weddi yàlla ak teem yi ñuy gasal yëpp naan leen yéen jullit ñi xéewloo ko waaye duñ duñ fayee ko payoor ba ci àllaaxira buñ leen tabaxalee ay tali jaar leen ca waaye du leen jëriñ ñoom ñoo ngi def ko ëllëg ci àllaaxira te demeet buñ leen buñ leen joxee ay machine wala yi ci aju leen ko waaye nag comme ña ko def gëmuñu yàlla seen pas-pas baaxut wérut euh, maanaam njëg fii rek la leen ko yàllay fayee waaye duñ dajeek moom foofa ci àllaaxira kooku alquran wax na ko maanaam qadimnaa ilaa maa amiloo min amalin wa ja'alnaahu habaan mansuuran euh, su ko defee kon nag pas-pas lu amaam njëriñ la moom dong moo mën a dimbale nit ki ku sa pas-pas wér rek sa lépp baax na moo tax gis nga téere bu barke bi ñu ko tuddee axdari yu ah, abdourahman liggéey ko ba muy lim dafa ne awalu maa ba alal mukallafi alal mukallafi tasxiihu imaanihi li njëkk a war ci mukallaf daal mooy mu fexe ba wéral ngëmam wéral ngëm du dara lu dul defal sa pas-pas rek fexe daal ba sa pas-pas wér ba sa xol bi lépp lu dul yàlla génne nga ko ci yàlla dong moom a xacc rek moo ca ne ndax yàlla dafa fiir te wax na ne xajuma ci sama juróom-ñaari asamaan xajuma ci sama juróom-ñaari suuf waaye fenn rek laa xaj mooy xolab jullit boo xam ne pas-pasam wér na xol booba nag bala koo yàlla dëkkee day fekk bu fay dugg du fa fekk dara bu fa xasee dugg tamit nag ba jël loos maam lu ko fa fekk rek mu génn su ko defee kon nag xol boobu yàlla xaj lu dara setal la lu jara baaxal la lu jara wéral wéral la fexe ba xol bi buy boo bëggee yàlla dëkk fa bu mu fa fekk iñaan bu mu fa fekk rëy bu mu fa fekk bëgg daraja bu mu fa fekk bëgg xalal bu mu fa fekk bëgg mbooloo bu mu fa fekk bëgg garaat yu kawe ak yeneen ya caaju yooyu yëpp di ay jàngoroy xol bu neexee ca xol ba yàlla du fa dëkkee bu fa yàlla dëkkee tamit yooya ak yu mel ni ñoom buñ ko fa fekkee yàlla génn ba fa ak loola moo tax tey bëri na xol yoo xam ne la mu dëkkee la ko dëkkee muy bëgg alal rek bëgg alal dong moo fees ca xol ba bu ko defee yàlla gental xol ba bëgg alal des ca am ci xol yoo xam ne tabaarakallaahu la mu feesee mooy bëgg soxna yi su ko defee nag loola ba mu amee rek yàlla gental xol ba bëgg soxna yi des ca am ci xol boo xam ne mu feesee mooy bëgg daraja yàlla gental xol ba bëgg daraja des fa am ci xol yoo xam ne la mu feesee mooy bëgg mbooloo ñi dar la su ko defee tamit yàlla gental xol ba bëgg mbooloo googa des fa am ci ñoo xam ne seen xol ya la mu feesee mooy bëgg ay ndomba tànk mu tere leen a nelaw yàlla gental xol ba loola des ca am ci xol yoo xam ne la mu feesee mooy rëy ba gàddu na iñaan boole kook soxor lool la xol ba tilimee yàlla gental xol ba yooya des ca loola nag maara day taali bu ca xol ba nekkee bay dee yàlla soxla rooxu ga xol ba deexee ca noona su boobaa kooka xolam ba deexoon na bu yàgg fekk moom ma ngay dund su ko defee nag bu demee ba dee xool ba gën a deexati ñoo mooy ñi nga xam ne bu ñu leen bu leen suulee ci seen biir bàmmeel seen rooxu ya duñ leen boyal ñuy dem di wëtti duñ bokk ca rooxu yi nga xam ne yàlla da leen di jël ñu nekk ci ay doqi njanaaw di naaw di wër jardin aljana ya yi nekk ci ay palaati wurus ni ko Ibnul Qayyim tuddee ca téere bu ñu tuddee kitaabul arwaax yi roox dañ leen di gasal tambu dugal len ci soufi souf ci asfala safilina ndax ci lolou lañ doon dundu am ci roho yo xamne dañ leni talal safara di ci ay lak ñi jotale seen genn walu mbugal bu ñu dekkee door dugg safara jot nak seen mbugal mi gëna a mat waaye xol yi nga xamne yalla da ko dekké won ba seen borom dee xamne bañuy dundu ñay ngay ngay ñoo nga dañuy dem di def ziyara tok rek dem ziyara ji seen mbokk yi nga xamne timit seen ya dañoo selloon ak seen xol ya ba yàlla dëkkee woon ko yàlla tinki seen ñaari roox yi ñu bokk di daje kom nañ doon seen jimm yu dajee fii ci àdduna nga toog ne tey sama baay génnoon na àdduna man ma génn àdduna maa ngi dem ziyaara ji ko yàlla dajale seen roox yi nga dem ne sama rooxu gi ma ngi ziyaara ji sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama rooxu gi mi ngi ziyaara ji sama sëriñ xaadimu rasul si Ahmad Bamba ma ngi ziyaara ji sama sëriñ tabaarakallaahu si Ahmed Tidiane Cherif ma ngay siyaara ji sama sëriñ Abdul Qadir si Abdul Qadir Jaylaani sultaanul awliyaa demeet kenn ku nekk si seriñam yàlla. jël rooxoom nga tinki ko mu dem di ko siyaara ji ne ma ngay siyaara ji ab sëriñam bu mën a doon moo xam xaadiriya la ca xaadir ba moo xam muridi la ca murid ba moo xam tabaarakallaahu tijaaniya la ca tijaan ba xataa ñu dul ñooña sax mën nañoo siyaarante ci seen i biir ndax roox yooya comme xas nañu sell yëpp ay mbokk lañ comme nañ bokkee woon fii tur yaa wuutee rek waaye fekk na la ñu doon joxoñ di ko dàq di daw di ko wuti benn rek la waaye nag ñi nga xam ne seen roox ya dañoo texee at yi dañ leen di tëj euh, ñooña nag ñoom du ñu mën a ziyaara jante waaye ñoom dañuy nekk lu ñu tëj ñi ñu tëj leen ci leen mbugal ñii ñu tëj leen timit euh, ba du ñu mën a déplacé wu place booba nga xam ne foofa la ñu nekk dinañu ñëw ci mba wàll roox li ci ibnul qayyim yi wax muy wax joo xam ne ju ñuy dolleekoo la ci borom xam-xam yëpp waaye kenn mënu caa dolleet yi euh, dara kon li ma bëgg a wax rek Ibrahima ngu nattu yaag jafe-jafe yëpp ñaxtu jëm ci kenn yàlla dong gis nga ko timit Yaquba ak nattu yu rëy ya ko daloon ca doomam ja Yuusufa mu di ko jooy ba deseetut bët ba ko gaa yi ne ko tee ngaa ñaxtu jëm ci ki mu ne déedéet innama ashku si wa husni ilallah sama njàqare geeg sama tiitaange geeg sama jafe-jafe yi duma ko tawat jëmee ko ci kenn yàlla dong laa koy tawat yonent yàlla isa jabaabirata tey daloon ca kawam ak ñu bon ñooñu bëggoon koo rey ba tëjoon ko ci néeg dafa ne duma tawat jëm ci kenn waaye ba mu tawatee jëm ci yàlla dong ñoom ña ko doon fexeel ka jiite woon pexe ma lañ mujj rey ba yàlla ne wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha euh, noonu tamit ngay fekk yonentu yàlla Muusa ak Firawna ak doole juree jëm amoon ak mbëru gi mu defoon ci kaw suuf ak li ci aju kàccoor gu rëy ji neexoon ci moom ak loola lépp taxutoon Muusa euh, tawat ay mbiram jëme ko ci Firawna keroog ba mu amee 30 la génn palais ba def na fukki at di sàmm ca bu war a ñibbiwaat Misra pour seeti yaayam yàlla xéewal ko ak nubuwatoog risalatu mu ànd ci ak magam ja Haaruna dem attaqué ji na firawna bëgg jaamaarloog moom ak lépp Moussa wan ko gannaaw rek jël loxoom ya tawat ko yàlla tàllal ko ko waaye yàlla mujj na ko xettali ko sotle ko ci kaw noonam bu bon boobu lakk ko labal ko ci biir ndox te biir ndox moom mu ngi mujjee ko safara ci moom moo tax ma ne lakk ko su ko defee nag mu mujj lab foofa safara wa maanaam ndox ma di safaraam mu mujj alku yàlla musal yonentu yàlla euh, Moussa moomu nga xam ne ba mu takkee morso yu xonq ñaxtu ci yàlla dong la jëm ni mu musalee Isa bi mu takkee morso yu xonq fu jëm ci yàlla dong ni musalee Ibrahima ba mu takkee morso yu xonq ci yàlla dong la jëm noonu tamit ca yonentu yàlla noox yonentu yàlla Muhammad moom raw ñëpp ci tawat ay mbiram jëmee ci yàlla ba gis na ko bi mu demee Taïfa fekk fa mag ñu deseña xale yuñ yarut ña jigéen ñu xamut kilifa ya di ko sànni ay xeer mu àndoon ak Sayd ibnu Xaarisata ba ñu mujj nàccal tànkam ba mujj nañu xaañ Sayd ibnu Xaarisata mi waafoon ca kawam di ko fegal saan waaye ànd ak loola lépp malaaka mi nga xam ne mooy Mikaayil ñëw ne ko boo nee waaw rek ma boole ñaari doj yi di lax sa bay ni kep ko ci wa dëkk bi ndax sama borom jepp na len ànd ak loola lépp yonentou bi dafa ne ko rek sama mbir dal duma ko tawat jeme ko ci kenn allahumma inni ashku ilayka du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas anta rabbul mustadaafin ila man takiluni lol la jele ba ñaan nga jeex di ñaan go xamne julit bu ne war na ko jéem man di ci ñaan ay mbiram ndax ñaan la go xamne gu bax la ku nekk ci njàqareeg jafe-jafe ci baax yàlla kartanam soo ko ñaanee yàlla xettali la comme nim mu xettalee woon borom ñaan gi ba muy ñaan ñaan nga rek tabaarakallaahu la dem tuuti ba ci benn place bu ñu tuddee naxlatu euh, juróom ñaari kuyal jinne sol mbubbam nit fekk ko fa ne ko bu la euh, bu la maanaam nit ñi réeree jinne yi ñoom xam nañ la tàllal ko loxo foofa ñaan eh, jébbalu dugg ci diina ji di juróom-ñaari kuyal jinne gis nga ko ba mu ca bàyyeekoo ba ñib si timit la ko yàlla wan ne ko waajal nga ñëw gane si ma maanaam ci kaw juróom-ñaari asamaan su ko defee nag léegi ci la def tukkee moom a wan ko ne ko waa suuf buñ la réeree waa kaw ñoom xam nañ la mu bàyyi yàlla muy gane ji ci kaw suuf yàlla moomu tamit mu doon gane ji ci mu doon gane ji ca kaw asamaan bàyyi ko ci kaw suuf mu ko gunge moog moom ba yàlla recevoir ko ci fu gën a kawe juróom-ñaari asamaan ji place boo xam ne kaw féeteewut ko kaw loolu lépp nag du dara lu dul yàlla bëgg a wan mbindeefam yi ne mi ngi fépp rek ndax am na ci yonantu yonantu boo xam ne yàlla mi ngi ko dalalee ci palem bi ci suuf ca maanaam suufu ci biiru ndox te kooku moo doon Yunus mu Mattee ñu ne maanaam ñaari yonantu dong mooy ñaari yonantu yoo xam ne dañ leen di dàkkantal ci seeni yaay kooku mooy Yunus ak Isa Isa ibnu Maryama ku ne dégg na ko moom ci yaayam lañ koy dàkkantalee parce que amul baay Yunus tamit ci yaayam lañ koy dàkkantalee donte am na yaay ak baay nga dégg ñu ne ko Yunus ibnu Mattee loolu tamit dana dal kilifa yu bari yu màgg ñoo xam ne dañu mujj di leen askane ci seeni yaay tabaarakalaaw timit moo tax loolu kon ni mu amee ci kilifa yi diine yi amee ko ci kilifa yi aada yi noonu la ko amee tamit ci kilifa ay yonantu yi yonantu yi li ñuy bëri bëri nag ñaar dong lañ ci askanee ci seen wàllu yaay si si mooy Yunus ibnu Mattee ak Isa ibnu Maryama yunus moomu bi mu tëkkoo nitam ña ci mbugal ngir ak caay-caay gu bon gañ nekkoon ba tax mu gàddaay ci lu duhul ndigalal boromam ba muy dem rek nitam ña tuub gannaawam yàlla fa mu mbugal mi mu waroon a wàccee seen kaw mbugal mooma nag mu leen doon tëkku fardal ci kawam mu dugg ci gaal commencé traversé géej gi rek gaal ga xar commencé sol ndox nit ña nag ca jooge jamono kardi bu nak xar di sol ndox rek bëgg suux jam boy daw sangam mo nek ci bir gal ga waye bu lol amutoon lol do am ñu ne kon de li ben jamam ci bir gal gi daw sangam kan la ñu ne mënuñ ko xam nañ wantale ñi sanni bant mu dal yunus leke jam lohon budon bu don daw sangam bi ñuy tuddee rabbul izzati wal jabarut ndax mi ngi gaday ci lu du ndigalam jappato ko rek sànni ko ci biir géej gi jën wu mag mag ñëw wann ko waneen jën ñëw wann jën wi ko wann mu nekk ci ñetti lëndëm lëndëm ak géej ga lëndëm ak jën wu njëkk wi ak lëndëm ak jënu ñaareel wi moo tax bi ko alquran tudd mu def jamxo mu ana salim ne fa naadaa fi xulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alxaalimin jamoo mu ana salim la def sëriñ daara Cheikh Modou yàlla yàlla yokk leeram mu ne buñ la laajee lu muy rafaaxee neel dàmm la waaye lu muy defati rek kasra kasara lay nasabee kasara lay xafatee moo tax kon ñetti lëndëm yooya tax mu def jamono maana saalim muy lëndëm ak géej ga lëndëm ak jën wu njëkk wa lëndëm ak jën wu ñaareel wa foofa de ba mu jàqee tàllal ay loxo yàlla ba jox ko damiru xitaab kon foofa yàlla recevoir na ko xettali ko te fekk mi ngi ci biir géej ci suufu suuf ne fa naadaa fi xulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu foofa nag rek la yàlla wax wax euh, maanaam yenkiwal jën wi wan ko ne ko buy rees ngay dee jën wu njëkk wa géqi ko jënu ñaareel wa ko njëkkoon war na tamit géqi ko mu sànneeku ca tefes foofa nag la yàlla saxalee naaje ci peggam naaje am na secret ndax naaje weñ du ca dal waaye booba tooyaayu ñaari jën yooya war na ko suñ ko bàyyi woon weñ yéen ndiiraan ko mu dee waaye naaje rek moo mujj sax foofa weñ ya daw ko ba mujj yaram waw waw mu delluwaat ca nitam ña moom la alquran ne fa nabasnaahu bil araa'i wa huwa saqimun fa ambatnaa alayhi shajaratan min yaqtinin wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yazidun ba mu demee nag nitam ñu bon ñooña fekk tuub nañu nag tàllalaat ko loxo waaye maanaam lu ëpp téeméeri junney nit tuub ànd ak moom dugg ci diina ji gannaaw bi nga xamee ne nii wanoon nañ ko gannaaw ci lim bu gën a tuuti boobaa ko wanoon gannaaw gannaaw nag ba mu leen tëkkoo ci mbugal mbugal ma fardal ci kawam fu tusul bu nattu amee rek xéewal yokk moo tax ba mu bàyyi koo ca nattu géej ga rek xéewal ga yokk na tabaarakallaahu mbooloo mu bari tuub dugg ci diina ji nekk ca gannaawam lu ëpp téeméeri junney nit nekk ca gannaawam xam naa nattu géejam gu réy googaa xéewal gu réy ga ca tofu dafa ñuy fàttali nattu géej suñu maam ju tedd ja xaadimu rasul Seex Ahmad Bamba ba mu bàyyi koo ca géej ga tamit gis nga ko li jébbalu ci ay loxoom tabaarakallaahu ay junne junne junne nit la ba ci ay millions looya la ñu meññ tey ñu tasaaroo ki juróomi continent yi ci àdduna bi yépp kon toujours gannaaw nattug géej xéewal dong moo ciy tegu moo tax Yunus ak nattug géejam nga xéewal nga ca tegu na wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yaziduun tabaarakallaahu xaadimu rasul tamit gannaaw nattug géejam nga la ca topp tamit ci ay xéewal moom kenn xamut nu mu toll ba mu wax ne tubaab yi buñ xamoon li may nattu géej gi jural duñ ma yóbbu dañu foog na ñi ngi may yóbbu pour di ma sànki waaye man yëg naa ne maa ni di sànki asiru ma al abraari xiina asiru wa zanna al ida hunaka anni asiru mu wax ca waxam ju rëy jooja su ko defee kon nag li ma bëgg a wax rek nattu baag la muy rëy rëy moom yunus yàlla dong la tàllal ay loxoom tawat ko ko ba yàlla xettali ko ca yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak nattoom ba ca nitam ña taayif foofa timit ba yàlla war koo wane ngan woo ko ngan ci kaw asamaan comme ni mu woowee woon ngan yunus ci biir géej yàlla wane ne mi ngi fépp rek noonu tamit la wane ne mi ngi ci garab yi comme ni mu nekkee ci biir géej gi nekkee ko ci kaw asamaan yi ni la nekkee ci garab yi moo tax ab yonantu ci yonantu yi ci garab la yàlla wax ak moom muy yonantu yàlla Muusaa ci faqlaana alayka innaka bilwaadil muqaddasi tuwa wa an axtartuka fastami lima yuuxa yooya kàddu ga mi ngi ko dikkee ca garab ya yàlla wane mi ngi fépp naka noonu tamit war na ko yeneen mbindéef yi ba nit bu dee dib jullit lu ñuy wax jébbal leen ko boromam fu ñu koy jébbalee boromam gas ba mu xóor rek ñu dugal ko ci biir suuf moom lañ defaloon yonantu bi moom lañ defaloon aadama moom lañ defaloon ñaari doomi aadama ya xeexoon ci xaabil ak haabil ba mu rey ko ñooña ñoom ñi yàlla njëkk wane ni ñu war a suulee nit ne suuf rek lañ war a dénk nit ndax ci suuf la bàyyee ko bi xaabil reyee haabil boot na ko lim bu yàgg ci ay ci diir bu yàgg ñenn nga sax dañ koy jéem a ne ay at la téeméeri at am nañu ko cay wax ma ne loolu nag ëpp na lu ci mun di am daal boot na ko diir bu yàgg su ko defee nag bi mu ko bootee xamul nuñ koy war a suulee xamut dañ ko war a suulam dañ koo war a lakkan dañ ko war a sànni ci géej ba yàlla mujj ebal ñaari baaxaañ ñi xeex benn ba rey moroomam ma commencé gas ca gémmañ gaag tànk ya ba bax ma xóot mu suul ko ca nag su ko defee nag ci la Haabil door a xam ne ndeke daal ndeke nit bu dee dañ ko war a suul moo tax nit mii ñu suul ki ko wan ne dañ ko war a suul daaxaañu ko wan nit donc bu ko alquran waxutoon kenn du ko gëm fa baasalaahu xuraban yabxasu fil ardi li yuriyahu kayfa yu waar yi saw ata axiihi yàllaa ko wax ci alquran kon ndeke ni ñu suulee nit baaxaañu ko wan nit moo tax kon nit ki njëkk a dee ci kaw suuf ba mu dee xamuñu woon luñ koy war a suulee ba ñaari baaxaañ xeex benn baray ray moromam ma commencé gas ci ay tànkam ak gémmañam ga ci làbbu ya ba bu xóotee musul ko rek la ne man dee torox naa waaye man dee lottu naa ci waroon naa xam ni may suru sama mbokk mi ba baaxaañ bi moo ma ko wan moo tax kon gis nga foofa lañ commencé bu ni rek ñu ne dénk leen ko di maanaam boromam dañ ko dénk ci boromam dénk ko ko lu ñuy fu ñu koy dénk ci biir suuf wane na yàllaa ngi ci biir suuf ba tey ñi gas ba mu xóot rek ñu dugal ko ci biir suuf gannaaw takk tànk yaa ak loxo yaa waaye gis na yàlla kenn du moom yàlla moomu ñu koy dénk ci biir suuf soo jëlee turam wa muy allahu di tur wudul soppeeku noo ko soppee rek mu nekk di moom kooku tur yàlla woowu rek moo ko moo ko jagoo boo jëlee muy allahu allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayyum nga dagg maanaam alif ga mu des lillaahi lillaahi bëri na ci alquran lillaahi mulku samawati wal ard nga dagg ko maa fi samawati wa maa fi ard nga diggat nga daggaat liif ga timit mu des huwa huwa laahu laa ilaha illa huwa su ko defee kon allahu daal mooy tur wi nga xam ne man nga koo takk ñeenti yoon te terewut lam doon firi dong lay firi allahu moomu boo ko siifiree 66 la lay jox juróom-benn fukk ak juróom-benn nit kii génn àdduna dee ñu war ko jébbal boromam nuñ koy tuddee niiw boo jëlee baatam niiw moomu ñuy jébbal yàlla ci biir suuf nga siifur ko niiw juróom-benn fukk ak juróom-benn la lay jox ndax nuun cinquante la yaa gi ko xëcc dix la waaw six la boo ko boolee mu jox la soixante six kon jël nañ soixante six di ko dénk soixante six ci biir suuf kon nag ni ab jullit deexee ñu koy dénk ci biir suuf ne dénk nañ ko boromam tey war na yàlla ngi ci biir suuf Moussa wax ak yàlla yàlla wax ak moom ci garab muy wane ne mi ngi ci garab yi naka noonu tamit yonent bi yàlla recevoir ko ca kaw asamaan muy tekki ne ma nga fa yunus tamit joxoñ yàlla ci biir géej muy tekki ne tamit ma nga fa ah, su ko defee kon nag yonantu màngoog natt bu rëy ba mu ko dalee ca taayifa ñu sànni ko xeer yaag mag ñu yaruwut ñaag jigéen ñu xamut kilifa yaag xale yi xamuñ fu ñu jëm ak loolu lépp dafa ne allahuma inni ashku ilayka du'fa quwwati waaye tawatu takk morso yu xonk jëm ci kenn waye gis nako yalla yàlla xettali na ci juróom ñaari kuyel jinne ñoo mu jittu fekk ko ci place bu ñu tuddé nakhlatu mam khalifa wax nako ci miratu safa ñaari kuyel jinne ya kenn ka tuddu munshin kenn ka nashin sharafin shashiro kenn ka tuddu lahqabu kenn ka tuddu amiru nu jaabir juróom ñaari kuyel jinne ya suñu mam khadimul rasul mi ngi leni way لمن معشر الجن نظمت نفرا أصحاب خير الخلق منهم خفرا منش والناس شرف وشاشر وعامر بن جابر والناصر وصاحب سبعة فهو اللحقب فهؤلاء حافظهم لا يقرب من جروم juróom ñaari ku yël jinne yooya ku yàlla dimbale ba nga man seen tur yàlla musal la ci jinne ga te pexeem jinne lu jara muslu la ba tax na yàlla sax digaloon na yonent bi muslu ci ba ne maanaam ba ne maanaam qul a'udhu bi falaq min sharri ma xalaq min sharri ma xalaqa sax ayu jinne ayu nit ak lépp dugg na ci wa min sharri ghasiqin idha waqab idha waqaba wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad ba booba jeexee tamit beneen musluwaay bu muy qul a'udhu bi rabbin maliki nnaas ilaahi nnaas min sharri waswaasil xannaas allazi yuwaswisu fi suduri naasi lu mu ca teg minal jinnati wan naasi kon pexem jinne caay-caayam nga ak mbon nga yàlla digaloon na yonantu bi sax mu muslu ci te lu jara muslu la ndax ñoom dañoo am ci ñoom ay xéeféer am ci ñoom ay jullit xéeféer ya nag dana ci am yoo xam ne dañoo bon soxor xol yu tàng léegi léeg mën nañoo lorab jullit léegi-léeg buñ la mënta lor mën nañoo lor sa doom mën nañoo lor sët sët ndax ñoom dañoo mën a gudd fan moo tax léeg léeg nga xeex ak ñoom buñ la mën lu dara rek wàcc ci say doom ci say sët ba ci say sët sëtaat waaye koo gis ñaareel ñu ne jinne ko jàpp rek boo vérifié diina ji dafa manqué waaye képp ko am diine sellal ko di pratiquer diine na ko yàlla bëggee di julli ca waxtu ya takkoog njàpp ak jàngal Quraan dama ne jinne ju bon jooja mooy mujj muslu ci yow waaye yow dootoo muslooti ci moom waaye boo nekkee ku sàggan nag sa julli matut sa koor waxi nopp sa joxe asaka noona sa yoonu màkk bala yàlla joxe wërsëg noona boo nekkee jigéen doo muuru soo nekkee jigéen yaa nga xeesal ba kenn xamut looy niru yar say weboole ko pentiir ko tabaarakallaahu dooy taxoo njàpp su boobaa pexeem jinneeg caay-caay ga nga mukki ci day jafe moo waral kon ba jigéen ñi sàgganee muuru looloo waral faru jinne yi bari lool faru jinne yi bari na ci góor ñi faru jinne yi tamit bari na ci jigéen ñi waaye ñeeg ñu ci bari boo toppee tànk ba rek da nga cay fekk ñoo xam ne seen diine dafa des seen ak laab dafa des seen jàngal Alxuraan dafa manqué seen takkoog lu ñuy war di kar di tudd yàlla dafa néew waaye yii ku ci takk sax ci su boobaa ñoom ñu bon ñooña ñooy mujj muslu ci yow waaye yow dootoo muslu ci ci ci ñoom ndax li nga ànd ak mooy mujj di leen dàq ni nga mel tamit dootuñ ko ñemeeti waaye soo melee noo xam ne kenn xamut sa melokaan wa ne këb jigéen takkaayu dama foo ne xanaa da ngay bëree ji sax léegi-léeg jigéen romb la nga nekk xanaa dafa am combat kenn xamut lu mu niru takk ko mu markeel yaramam wa ca ya cet tank ya ba ca cet kawar ga mu xessal bàyyi bopam ba nona mu mureeku wala mu tek ca yu ken xamut koka deug deug jinne du bon dip say say da koy jema rofu da koy bëgg lele mu nekk faram mu tëdd ba guddii yi sey ak mom man nako laxasu laxasu go dana fa dem waaye day nekk lu jafe waaye saafara gu gaaw ga daal mooy delluwaat ci yàlla rek def santaane ya bàyyi tere ya di taqoo njàpp di jàng alquran di bëri looy sikkar di taqoo julli yooyu yëpp di jàng ayatul kursiyu di bëri looy jàng falaqeeg naas yi boo ko defee rek moom ci boppam mooy mujj daw la ndax li nga ànd ak ñoom duñ ko ñeme waaye jigéen joo xam ne li may wax pentir na xarxaramam ba xef ya bu demoon ci xew doon te dëj la bu waxtu jotee du nangoo jàpp ndax day wax nekkoon kon xar-xaramam ba day froissé wu waxuma la tiim naka noonu tamit du nangoo julli du nangoo muur bopp ba ma ngay dox ak lu ne mu nekk ca loola jinne saytaaneeg yu bon yooya dugg ko day yomb waaye jigéen bu muuroo yiiw xar-xaram ba rekk di feeñ ak cet teen xëye mu bañ a emaayu ndax emaa yi bu daganoon sa xaraam na ndax day protéger digënté ndox mi ak wéwi té bu ko protéger ba du ca yegg bo jappé amo japp nga julli amo julli bo sango janaba amoo sangum janaba nga nek sobe waxuma la nak mes bu non ñaara tax mu haram ndax bo xasse mesu bo jappé sa bopp bi du toy té massa bop farata la nga nek sobe julli amo julli ba ca tagu timit même bu non bo xasson sangu janaba sa bopp bi du tooy ñoom bañ nañ ko sa pare wuñ mu tooy dañuy mujj àbb benn fulaar wala ñu jël benn morso seen yooyu noonu muur ko ca bu ko defee ubbi saas bi sangoog moom noona amuloo am janaba wuloo sangum janaba sobe rek nga nga boo xam ne yaa ngi dox su boobaa nag nit ku sobeeku saytaane bu sobeeku tilim da koy ñëpp dafay da koy gaaw a dugg yooyu nag mooy tax kon jigéen ñu ci bëri bëri ay faru rab góor ñu ci bëri tamit di wàccee tuba yi du fa maanaam guddi gi yëpp ñuy dox di wër di wër rek kuñ fay mu dóor leen nekk ci ba bër set ngay nelaw nelaw nelaw ba jant bi tiim la faru rab tamit wu jigéen woo wuy gént di sëy ak moom boole ko wër sa mu jattu dana la yomb loolu tamit ca ngay nekk rek bëri ay jafe-jafe fu ne nga dem jafe-jafe dal ci sa kaw saafara bu gaaw ba du dara bàyyi lu bon li nga nekk rek delluwaat ci yàlla soo ko defee rek am jàmm waaye fu ne nga dem sëriñ bi ñaanal ma nangam ak nangam sëriñ bi dana ñaan ba dee waaye fekk réseau amut ku amul réseau kenn mënu koo ku amul réseau kenn mënu koo jot jokkal jokkale su ko defee kon nag réseau ba mooy dellu ci santaane yàlla yi réseau ba mooy bàyyi tere yàlla yi réseau ba mooy melokaano melokaan wi yàlla bëgg nga def ko booy jigéen muurul ba mu des xar-xaram ba ak cet ténk ya jamono ji nag boo fi muuroo nekk jigéen amuloo fulla dañu mujj saboté la ba nga muri sa muuraay gi nekk fi daan yaa ngi mel ni maa ngi muslu ci yow xaw ma meer nga xaw ma lan nga boo yoree jëkkër ju sàggan sax dalay ba maanaam boo fi nekkee di muuru boo amul sens bu bëgg laa takkalab ñaareel wala mu ne la sa muuraay gi maa ngi muslu ci moom xam nga loolu jëkkër ju doy waar la waaye bu nekkee jigéen gu baax bu muuroo jëkkër gi dafa caa wër ab dëkk waaye boo muuree mu naqari sa jëkkër mu bëgg laa kii bañ la ca loola ba ko fa te dem dese di yàlla ndax jëkkër dañ ko topp feek mi ngi ñuy digal lu ñuy topp yàlla comme ni ñu toppee sëriñ feek mi ngi dëppook topp yàlla foom ni ñu toppee waajur bu dëppook topp yàlla ñoom ñi ñëpp nag mooy yàlla bu ca neexee ñi baleen fa des di see yàlla yonent bi dafa ne innama taatu fil maaruf yàlla ne wa sa sabila man anaaba ilaya toppal yoonu ku jëm si ci man ku jëm si wut ci yàlla nag buy jëkkër ba ko fa yàlla dana la jox ku ko gën ku jëm wut ca yàlla bu dem sëriñ ba ko fa yàlla dana la jox ku la mën a ku la mën a jokkale ak sa borom ki nga timit tabaarakallaahu ànd ak moom mu lay imposé ku la yàlla bëggut bu dee waajur bu ko ca topp li la war ci njëkk ak tar tar maanaam rafetal jëmee ci moom ak ya ca aju yëpp maanaam nga nekk ca kon dama bëgg a wax ne ñaxtoo ngoog ba ko yonantu bi def jëmut jëmeewut ko ci kenn du mbindéef du kenn dafa yëg ne dafa lottu mu jël ñaxtoom ya jëmee ko ca yàlla mi nga xam ne mooy rabbul isati wal jabarut ba ne allahuma inni ashku ilayka dufa quwati waaye ñaxtuwuñ jëm ci kenn euh, noonu kon boo ma toppee xam naa ci ñaxtoog ni mu xewee ci jamono ji takk morso yu xonq yi bari lool sa sàkk mi lakk nga takk morso yu xonq foo jëm sa darat bi tilim nga takk morso yu xonq salal bi yàqu nga takk morso yu xonq sa kër gi tilim nga takk morso yu xonq ceeb bi manki gaz bi manki nga takk morso yu xonq tabaarakallaahu courant bi ñëw facture ya seer ak maanaam ñeenti es yi xawar góor ñu bëri dal ci sa kaw muy sones senelek sonatel ak saako ceeb bi nga takk morso yu yi la boo takkoon morso yu tawat ko yàlla na nga war a mel nga mel ko ki nga bëgg yàllaa koy tàggat mu nekk ci li nga bëgg dootoo xamati problème yow neexal ci li yàlla bëgg rek boo ca neexee ñépp bokk ci su boobaa yàllaay tàggat ñi nga bëgg ñu tàggat leen mu nekk ci seen maanaam loo bëgg ñu defal la ko kon daal dama bëgg a wax ne nañ nekk ci li ñu war yàlla musal ñu ci li ñu wër waaye bu ñu fi bàyyee li ñu war yàlla bañoog li ñu wër ñu am problème li ñu wër nag dafa bëri li ñu wër ñeenti es yi ñoo ci ëpp doole facture SONES facture Senelec faktiiru Sonatel ak facture saako ceeb bi yëpp góor ñu bëri tabaarakallaahu dellu ci bàmmeel yi boo leen vérifié woon lu ci bari ñeenti es yi leneen di fa yóbbu bokk na ci jaaxle ga ak jafe-jafe ga su ko defee kon nag bu ñu nekkee ci li ñu war yàlla ci mbaaxam mën nañoo dimbali ci li ñu wër su ko defee xam naa boo ma toppee ci waxtaan wi ñëw incha allahu ma sof ak yow ci loolu ma sos ak yow ci wàllu li ñuy war ak li ñu wër wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa luñ koy joxan ginnaaw bi nga seetaane yi